adduna bi nag yemul 2024. il peut rebondir. mais Ousmane Sonko il a quoi il est né en 74. il a quoi il a 47 ans man Sonko y a de l'avenir il a de l'avenir et puis. Euh... il a 49 ans. ah waaw mais situation Euh, dafa dend ak élection bi ñëw élection bu jàlle yu bari day xew maanaam nekk ñu ci début de mandat nekk ci mi mandat régime bi mu amal problème cinq mois moo ko fi dese. est loolu mooy danger bi. mooy danger bi c'est-à-dire. est-ce que régime bu bees bu toog. Hmm. ak Ousmane Sonko. doole bi mu am. Hmm. est-ce que dina permettre à Ousmane Sonko mu relancer wu. ça dépend ci kiy topp. mais loolu laa wax. mi ngi dépend ak ku mu mënta <laughs> doon régime bu bees laa wax. defal ndànk defal ndànk defal ndànk. waaw nit mën na ñëw tëj ko ba damm caabi dem ba dem ba deuxième mandat des six mois peut-être mu bàyyi ko loolu ngay xalaat ah mais politique du demee noonu. politique rapport de force la. mu ngi dépendre ci candidat Pastef ñaata lay am est-ce que deuxième tour day am est-ce que candidat Pastef foofu day gagné wala day jàppale kuy gagné attention. ñu négocier libération est-ce que dégg nga baax li mu la te Pastef bu wootee à 75 pour cent de ses capacités kese candidat candidat am dem deuxième tour. waaw. Ah. est-ce que dégg nga baax li mu la comprend moo tax yëf yi kenn mënu ci génne Ousmane Sonko kenn. qu'il mu nekk ci biir rek ci biteeyam kenn mënu ko cee génn xanaa leen waa Pastef di dof doflu naan xaw ma Ousmane mooy candidat A ba di wax seen waxi gone yooyu fexe ba rate bi loolu de muñ ko defee moom nañ jàpp ni kii ñëw moom. noo dafa nag nañ jàpp ni kii ñëw moom day taj Ousmane Sonko ba damm caabi. da ko fay bàyyi ba 10 ans di war a des 3 mois mu bàyyi ko est-ce que dégg nga baax na mais bu Pastef compté ci élection bi kenn mënul faxe ba Ousmane ko di génn ci kaso bi dégg nga li ma wax voilà moo tax mën man la politique rapport de force et de stratégie la.